képp ku fi ñëw yàlla nga ñëw ci jàmm dellu ci jàmm te it lépp bépp lépp loo fi indi yaa xam muy jàngoro wala muy eh, aajo joo xam ne àngu am nga ko yàlla na ko suñu borom faj di barke Mame Saliou ñi nga xam ne ñooy waa presse bi wax dëgg ñoom ñëpp ñu ngi leen di sant di leen gërëm ci eh, lu am solo ndax ñoom mënuñoo dem sans ñoom ndax eh, li nga xamante ne bii saa su ay kat la ñuy yëkkati di ko di ko di ko wax ñoom ñii kat dafay mel ni. suñ bëggee doomu aadama yëpp jot faaw ñu jaar ci ñoom kon nag ñu di sant baax yéen di leen gërëm di wax ni ah, sëriñ bi kàddu bi jox na ko sëriñ Fallou moom sëñ daan Saliou dana wax ci turu sëñ yi dana ci wax léegi incha allah sëñ bi mi ngi wax ni ah, liggéey bii waxtu bu nekk damay nekk ci wetam mu di ko wax waaye wax na ni daayira bii nga xam mooy daayira soppee Mame Saliou Fall Daaru Xor Xidma moom de mu ngi ci kanam mi ngi ci ginnaaw mi ngi ci fépp fépp waaye làmb daal danga ko ci def ndax taxawaay bi nga xam ne ñu ngi koy taxaw taxawaay la bu am solo boo xam ne mi ngi leen di ñaanal bu baax a baax a baax seen daayira bi muy joxe ndigal ni képp koo xam ne ko yaakaar sëñ Saaliw bëgg na nga tàbb ci daayira bi ànd ak ñoom ci li ñuy dox ci jëf yi ak ndigal yi loolu mooy li nga xam ne sëñ bi saa su ne mi ngi koy wax muy bëgg taalibe ñëpp bàyyi ci xel ñu ngi jégalu nag yi wasalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakatu comme ni ma ko waxee rek dañ koy def jëfi murit bu soobee suñu borom danañ tàmbale juróomi tonni ñu def ko ci liggéey bi ñu tàmbali ñu ànd ko yéen suñuy xarit ak ñu xam ñëpp it daneen ci soññ ñoom it ñu dugal seen loxo ci liggéey bi bu ko defee ñu ànd ko liggéey ba barke Sëñ Touba ni nga xamante ni noonu lañ jële woon engagement ci kër Sëñ Touba gi yëkkati junni yu bëri ko jox ñu tàmbali te fi ñu toll nii bu ñuy tàmbaliwaatee rek ñu tàmbaliwaat noonu lañ ko defee ci dispensaire bi ñu tabaxal maam Seynabou Ndiaye waajurum maam Cheikh Ibrahima Fall ndax ca fële ca paaleen la muy rëy rëy rëy rëy mosuñ ko foon xalaat dañ xam ne dañ ko war a cëral moo yokk ndox ma yokk courant ba tabaxal ko dispensaire parce que ne ubbi engagement boobu it lañu am fii danañ ko ànd liggéeyandoo ko incha allahu bi ba jébbali caabi yi waaw léegi nag li am solo monsieur le préfet li nga xam ne chef de l'état yëkkat na ko muy alali réew mi di ko def ay résidence Sénégal dañuy bëgg ci seen rapport yi ngay def mu war a ñëw ci préfet dem ci gouverneur dem ministre de dem fële ci présidence de la république nga boole ci ne résidence yi ñuy def fii ci Daara Khafor murid yi soxla nañ ko nga alali réew mi te dana dundal lu rëyit dana dundalaat lu bari kon nag ñu nuyu Mor An Gueye ak délégation yu àndal wante di nuyu mbokki taalibe di feddali suñu kóllëre ak li ñu bokk mi sëñ Tuubaa ak Cheikh Ibrahima Fall eh, di am mbégte loolu di ñëw fii te tegum xeer bu njëkk bi ah boole di teewal fii nag monsieur le préfet de Mbacké comme ni ko waxee ba maanaam président de la république parce que boo nee préfet ñu ñëpp président moo ñu fi indi moo ñu fi nommé moo tax moom la ñuy représenté te xam nañ ne président nu mu fonkee kër diine yi ba tax na mu sumboon programme bi ñuy wax modernisation des cités religieuses maanaam kër diine yu yëpp am fi ay defar ay kër yoo xam ne yu mucc ayib kër yu àdduna kër yu bàkkare ñu xam ne yelloon nañ ko ñu war koo def te tàmbale nañ ko ci ay kër yu bëri te def naa li ñu wax fii ci suñu rapport ñuy def dinañ ko def bind ko ñu xam ne fii kër gi kër maam say war nañ koo defar ni ñu defaree yeneen kër yi te président def naa bu ko yeggee ci moom rek dina ci war def dara parce que ñun xam nañ Sénégal suñu doole mooy suñu tarixe yi mooy suñu sëriñ yi sëriñ ak taalibe moo yor Sénégal donc di rafetlu loolu ah, di wax aussi euh, lu monsieur le maire wax léegi ci électrification bi xam nañ ne non communes yi amuñu doole mais def naa bu ñuy jàppee jokkoo ak waa ñi koy yelloon ñi ko yor buñ ci waxtaanee rek dinañu mën a am saafara ci loolu may fas ne wax ci turu jigéen ñi di sant di gërëm képp ku fi teew ndax soppay maam Saliou Fall Daaru Xafoor Xidma mi ngi juddu le 14 avril 2020 ci mbiir mbas mi euh, ñu fas yéene ci liggéeyal Serigne Touba di ci liggéeyal maam Cheikh Ibra di ci liggéeyal maam Saliou Fall ñu ànd ceeg euh, sunu baay Fall yi di sant ñëpp di gërëm di wax ni soppay maam Saliou Fall Daaru Xafoor Xidma li ko tax a jóg mooy fas ne jublu ci date maam Saliou Fall bi fas yéene bépp njaboot bépp cheikh ak képp ku sopp Serigne Touba ak maam Cheikh Ibrahima maam Saliou ñu fas ne ànd ak ñoom ci liggéey bi. liggéey bi nag bi ñu ko dooreek léegi li ñu njëkk a tàmbali mooy ca kërub dëgg ga fa lañ njëkk a tàmbali le 31 juillet 2020 fas yéene yeesal kër maam Saliou Fall gi tey ñu dellusiwaat le 20 le 12 décembre 2020 fas yéene teg pose première pierre kër maam Saliou Fall Darou Khafor Khidma di leen ci sant di leen gërëm di wax ni soppey maam Saliou daaru xafar xidma xeebul dërëm mais yéebul junni ndax kuy dugg ci soppey maam Saliou Fall faaw nga jënd carte de membre 1000 francs addiyaayu weer bi 1000 francs muy 12000 boo ko boolee muy 13000 ñu xam ne kat yaa ngi jàpp ci liggéey bi ñuy sas suñu bopp di sas ñëpp nag di wax ne dañuy tàmbali rek te fas yéenee jëm kanam rek ci dooley maam Saliou Fall daaru xafar xidma ñuy sant autorités yi fi ñëw yëpp chef religieux yi fi ñëw yëpp di sant soxna yi ndax jàpp nañ ci liggéey bi bu baax a baax a baax bu naaj bi tàngee ñu ngi ci waañ bi bu naaj bi tàngee ñu ngi ci bale bi bu naaj bi tàngee ñu ngi ci liggéey bi kon amuñu seen fay waa daaru xafoor ñu ngi leen di sant di leen gërëm di ñaan yàlla na ñëpp am jàmm ci barke maam Saliou Fall sëriñ Xasan nee na am na mbégte moo xam ne bu dee daane bég mbégte mu gën a kowe mii mbégte amut ngir ay anam yu bari Euh, waaye nag di ñaanal sëñ Muntaxa Mouhamad al Bachir xalifa taifa al muridiya yàlla may ko gudd fan ak wér ndax nit nag lu muy tal daa fekk mu wér arab yi dañ ne asiha taj ala ruusi asiha loolu li mu tekki mooy wér ci boppam boo ko dee seet mbaxana lay doon waaye nag ca kaw ña wér soo wérut dongo ganaata bu ñu la ko tegee nga dindi ko sànni ndax métit wa moom mooy tax kon nañu ànd ak wér gi yaram ñun ñëpp te ñaan ko sëriñ Muntaxa am ko su ko defee ci barkeb lool ñu ñëpp ñu am ko euh, dañuy tënk ndax waxtu wi dañoo xoj baax a baax waaye damay wax sëñ Saali bu ñu ci bëggee xam dara incha allah da ngeen di wootee conférence publique nationale lu ñu xam ci mam Saali ñu golle ko wax ko mu nekk question réponse waaye fii tënk rek la ñuy wax ndax buñ toppee xar baax maam Saliou yëpp duñ fi jógee bisab tey li ñuy de rek mooy dañoo wax ne lépp lu ñuy door mu nekk juróom fukki at wala téeméeri at xéewal la nga ca te 1920 ndax 19 dañoo gor fii 20 la ñu sanc fii boo xoolee vingt ak léegi siècle bu mat sëkk la muy cent ans bi cent yi jotee ci xilaaf ak sët yi seen xasan moo du maam jiite loolu ci leen di am ndax baatu xasan mooy lu yéwén lu rafet lu baax kon yaa Cheikh Xasan Xasan la fa am rek na yàlla dëppale lii ñuy def ak sa tur wi muy lu rafet te defe naa ne lii lu ko gën a rafet amul kon sëriñ bi nee yéen ñi nga xam ne yéenay aw gan jóge ci kër yi ngeen jóge yépp te ñëw fii jataay bi mitti lool waaye bëgg diine ak bëgg loo xam ne ci ngay am mayug yàlla ëllëg autorité religieuse yi teew nañu administratif bi itam teew nañu kilifa diine yi amul kenn koo xam ne des nga teew nga kon loolu rëy na ci sëriñ goo xam ne bu cant daan am cant gu gën a féete lii kaw amut incha allah di sant daal ñëpp ci seen taxawaay bu rafet bu sell boobu euh, sëñ Saalix ci liñ ciy tënk diggam ak magam ji maatug sëñ Saalihu Mbàkke toog ma voyage Guinée Conakry sëñ Saalihu jox ma nii ñam xam naa ne ki sant ñang moom bu doon maafe muñ ko jox dana ko jeexal man rek ma ne ma sëñ Fàllu na jeex bi ma xéwloo bu ñëw mu di ma ñaanal mu ne ma bàyyi Saalihu ak ak euh, bàyyi Cheikh Ibra maanaam ah, mu ne ma kenn lañu duñu ñaar duñu ñett daal def nii loxoom mu sëñ Saalihu Mbàkke kon loo wax ci Cheikh Ibra mu ne sëñ Saliou sëñ Saliou daana def soo jógee ci Cheikh Ibra Fall mu ne ah xalaat Cheikh sama mag ju baax ja kay naan sëñ Saliou sama mag ju baax ja wax na ne jóge de fii di dem ci barabu Serigne Touba bii te ñu bari dañ ne Cheikh Ibra Fall seetu sëñ Touba bi mu fi jógee am na dogu teg dem seeti bi mu ñëwee ba jub ngaa bu la taxaw maam Cheikh Faye Yankou jébbalu altina ci Cheikh Ibra Fall bind aw turam moom ko ne ca Kaolack quartier Coofak boobu moom mu ngi muritu fii ci xurum Mbàkke Abdou Fall euh, Roqaya sunu mag ju baax xëy sunu Mortala toog ne mu ne ah xam ngeen gumba ñu ne ah, mu ne ah nekkul ci ay bët daa am na ci ab xol la ne bi ko baax ki demee sama sang ba ba léegi xamatuma ci àdduna dara mu laa doon seeti waaye moo tënk samay tànk ne ma bu ma ko seet si su ma ko fekkee mooy suma wàccab liggéey ëllëg yoma xiyaamu al akbar yow su préfet walla préfet na sa xel dal te lii na nga jël bindukaay man maa la ko wax te ñeme naa li may wax 1920 la mam saa yi nañ toog fii daal di ne ki ñuy wax tubaab bi ñu di ko jey ci àdduna ne moo moom Sénégal yilif ko mu ne mu ne ak xalaas su moomee lam jeexee kii yilif fii di Sénégal day gàtt day am bopp ndaama lay doon day làkk kaamee joxoñ fi mooy Senghor sukkandee la fii lañ ko fale gannaaw ba ci sëñ Fallou dëgëralee loola kon gannaaw teew nga fii te passé bi nga wax ñu dégg ko incha allah jàmm rek ngay am li nga xam ne nag man mooy samay doléance ndem sañ naa ko ndax waxtu wi li ma bind ba xooluma sax kayit bi ndax dafa xat bëgguma tañ nit ñi bëgg nañu incha allah fii euh, poste de santé man dama ko xeeb ndax Eva Marie Coll Seck dossier yi ma yor mu ngi fii dem naa ba mu recevoir ma ay temps lii taarixu daaru xëfóor daal ne waaw sëñ Fallou di ma wax man ak ña ma àndal ma mu ne ma waaw yéen ngeen wax daaru xëfóor ci ni mu taarixee ngeen toog ba léegi amul leen li nga xam ne ma poste de santé loolu nu mën a demee yéen waxuma euh, poste waaye centre de santé ngeen war a am kon maa ngi koy tawat fii këyit yaa ngi man di ko ñaan Serigne Sougou sama jarbaat akkan ngeen topp ci di fajoo fañeen man rafet lu ma la nañuy fajoo suñu daara xafoor waaye nag ki nga ne mooy maam Saali mooy docteurul islam kooku ku baax ku tedd ci moo ko ko tuddee ci lu wér leneen li nga xam ne moo ci des itam mooy tata yi ci daw xaw ma transport xaw ma ñu koy lijjanti na daal di am fii nam gaawee muy dépare mbakke wala Touba dem ba xuru Mbàkke gee wala xëy na kër Ibra Yaasin waaye dong yi ak ñi liggéey tumuranke nañ ci wàllu transport nañ fexe maanaam mu am fii nu mu gën a gaawee nag bu muy lu ñu naan ci ay kii nañ ko bind jaar fa mu war a jaar monsieur le préfet jaar ci sa kilif ca kaw ba àgg ci Macky Sall le président mu def ko li ci des mooy résidence bi ngeen wax résidence bi moom wax dëgg li ngeen ci wax moom dama ko rafet lu ndax door nañ ko sax tegoon nañ xeer bu njëkk boo xam ne mu ngi fii sëñ daam Abdourahmane xalifaam bi mujj a toog moo def kii bi su ma jumul deux cent quatre-vingt-douze la muy ñaari pàcc benn pàcc bi lañu liggéey benn bi fondement bi benn bi dem na ba xaw a raase bàyyi na fi fer bàyyi fi ciment bàyyi fi la mu war a àndal yépp su miir bi àggee nañ attaqué loolu bu président yi dugal loxo mu doog ci waaye na xam ne waa Darou Khoudoss takku nañu pasteefu nañ te loolu dong lañ bëgg mu am euh, ki nga xam ne mooy maire beet euh, monsieur Abdou Mbacké Ndaw di suñ sëriñ ndax li nga jege sëñ Tuubaa bokk ci moo tax sant nañu jokkoo naayu téléphone ay yoon par professeur euh, Mouhamed Lamine Gueye jëmmoo yi ma xam la waaye jotaay bi taxul mu bari kon loolu nga joxe muy 5 tonnes yi ak sa pasteef bopp fii bu dee am loo xam ne mooy résidence man yow sas naa la sama diggante man ak yow ci wàllu wëllëre lii nga xam mooy 5 tonnes yi xeeb nga ko nee nga ndorte la ndorte nag fii joxe wuñ caabi je la ngay liggéey ak gut kon incha allah na nga yokk na nga jëm ca kanam barke sëñ Touba.